bi kenn mënu ko présenté tey ndax xeex moo am fii tàq na salaamaaleykum émission bi tey kenn mënu ko présenté ndax xeex bi anam kan moo doon xeex yow la gën a naka def ah. yow la kaay. na man de waaw wala lii nag moo toj kee la jël ko jël ko <laughs> eh, gis nga gis. <laughs> voilà fi mu nekk nii yéen a ngi ci seen biir émission Rich-mon Djizz bu 10h jotee ba teg ay quelques simili wala ay tiers waxoon naa leen chaque jour émission bi nii lay demee xaar leen ñu ñun ñu ngi ñëw wax naa leen dëkk bu ci nekk wala koñ wala ah nit bu ñu neex léegi sax dañuy tourner si taabalu kii taabalu gerte caaf yi ba tax na su ma nuyoo ba pare damay dem si maire bi laaj ko nu coow li demee garant bi ma bëmax ma nga nee taxaw. waa léegi nag émission bi nii la demee eh, ma ànd ak Mbisaan tey ci 10 heures bi pour bégal leen ñi ngi fii nag Grand Dakar nee naa la xeex laa doon at grand bi def ma bu max ba tax na fi mu nekk nii da ngay mër day na waar ba tax émission bi nii lañ koy defee sa su nekk nii lay tàmbalee it saa su nekk ba tax na tey 10 heures bi teg na yéen am na ñu nekk ci kawlal yi ñii ci seeni i ñii seen i nekk am na ci ñoo xam ne nag ndekkeetuñ ndax rismon jiis kon ba tax na tey tey maa sama bopp kon tey poté moo solol boppam tey nag nii laa solee sama bopp caaw li waa ma ñëw salaamaaleykum booy daw may lekk gerte gi a ah, mais dangay daw booy daw may lekk gerte gi na nga maa la sant. yow fii ngay toog chaque jour di jaay. waaw waaw. waa xeex bi nu mu demee. ah jàmm salaam rek. ñii lu doon xeex ñaari grand yi. ah xaw ma si dara si moom xam nga ma ma déedéet. xam nga looloo jaay. gerte caaf. doon may kew kew. jëlal. kon suñu yaay eh, nee naa la man kilim nga bëgg sax. na. ban waykat moo la neex. waaw Youssou Youssou Ndour ba mu waaw Youssou Ndour. waaw waaw. nuyu ci sa doom yi. Ah, waaw nuyu naa ko bu baax. gouvernement yëpp ñoo ñëpp nak cosaan yëpp la ah. nuyu na leen. Rismon Djis fu mu dëkk côté cosaan. man foofu lay dëkk côté cosaan la jël. wax Rismon Djis. ah Rismon <laughs> moo nekkoon suñu yaay Malado Diallo ba tax na kaayoo grand Malado Diallo nee na mi ngi ñaan li nga xam ne mooy Youssou Ndour léegi Youssou Ndour bi nag jox nañ ko ko di ko may grand bi mu may ko ko neex waa grand na nga def. ça va bien. mais yow tu son bon. Ah, merci. mais tu fais quoi. bon je suis chauffeur euh, au Sénat. léegi euh, Youssou Ndour bi koo ciy nuyu. bon maa ngi ciy nuyu sama famille. particulièrement à ma femme Eliane Eh, sama nouveau-né Maguette Ndiaye. lan mooy nouveau-né. waaye sama doom bu bees. ah doom bu bees bi. waaw liir bi liir bi. voilà très bien et mes parents en Casamance aussi. ah. waaw Rismon Djiz. Rismon naka naka. naka. voilà. voilà nee naa la fi mu nekk émission Rich Mon bi nii lay demee saa su nekk ba tax na yéen ñi toog di ngeen ñu jaral fi mu nekk lii bu doon ball tiré nañ ma ko ma dee ngeen ñàkk doo leen reetaan. infraction ngay def nii. Ah? infraction ngay def nii. est-ce que c'est sûr infraction la. infraction ngay def comme comme pervers nu mu koy woowee. ngay def ni infraction la pervers boobu loolu la jàppale te trama prison trama forcé. barke Cheikh Béthio fi la buujoo. maa ngi bëgg chaque jour. Ah. di kontaan si TFM. mu ngi teg Youssou Ndour tamit moom. Ah. si. si politique beeg yëpp ngi ndaaw yàlla moom moo jàppale Macky Sall mu nekk président tey. yaa ñeme dëgg yow koo koy may. man maa ngi koy may ah, sama gars yi ñoom René. yow da ngaa am moustache te ju doogoo nii. waaw <laughs> waaw. Ah, non dara ma de. Ah, yow ñeme nga mag de. i man bul wax loolu waay. <laughs> Eh, eh, ay solo <laughs> wala ba tax na dégg nga xale bu góor bi li mu wax eh, nee na Youssou Ndour bi mi ngi koy eh, maye di ko may ki nga xamante ne mooy maa jigéen Ndour ba tax na maa jigéen ñun ñii it delloo nañ la njukkal eh, macha allah xam nañ li nga def ci réew mi te xam nañ li nga war a ci réew mi ba tax na ñun ñi nga xam ne bëgg nañ lu baax ak képp ku bëgg lu baax jël na gardam ci biir réew mi parce que yow nee naa la foo taxaw jàmm fay am te réew mi ci jàmm nga ko teg te ca jàmm la jëmit ba tax na yuusu maa jigéen félicitation avant Macky Sall kon Macky it suñ président bu bees bi félicitation fii ku def lu baax rek toog waaye ku deful lu baax it dem. toog ku def lu baax toog. toog kon ku deful lu baax it doo toog. kon Youssou Ndour bàyyee nañ la loolu nga xamante ne fi mu nekk nee naa la ñëpp jug nañ waaye yow ba nga jugee la dëkk bi kon Youssou nee naa la sa jug yombul waaye bés boo jugee prouvé ba tax na Youssou Ndour bi ma mayaat naa ko Youssou nduur kon ñu dem. déglu ma ma jox la conseil looy def nañ ca seet yàlla sama maam lii la ma wax. leng te bul demee boor ñi ngi ci biir émission bi nga xamante ne moo neex moo xew ci jamono moo ris moon gis émission bi nga xamante ne moo yëngal talboo yi fi mu nekk nii dàq mi ñoon soli ñu gën a poté ba tax na émission bi damay nuyu ki nga xamante ne cuuraay bu amul woon ci dëkk nit ñi dee ba tax na maire bi cuuraay lay jaayi mbisaan yow cuuraay moo tax nga màgg mbisaan fi mu nekk 5 kilos nga doon posé loota da la cuuraay ba nga ubbeeku ba tax na maire yow lii lu muy jaar cuuraay 1000 francs lay jaay ak 1500 waa léegi nag cuuraay bii ñu àmbale mu mel ne cadeau il faut que ma laajal leen ko ngeen xam nu mu tudd ndax dégg naa cuuraay yi dañoo bëri façon ba am na ci yoo xam ne dañ lay yóbbu ici sa repose jël leen seen garde nag bii nu mu ah. bii nu mu gawe saaf ah. moom laa jaay di ñaq di jariñ mooy gawe saaf waaw di di jàppale nag yusulul ah. di daw yus man diis ñaq jariñu rek moo tax ma jor sama pañ bi di jaay diis bëgg nag yusundu jàppoon ma ci Macky Sall bu bees bii man ñàkk jariñ rek laay ñaan bii danga ma koo may may naa la ci xol bu du ko may màggan bay ak binta mbay sama mag ji ma jëm ci côté cosaan voilà fi mu nekk nii ban kilim ngay ñaan Assane Ndiaye bu bees bi laay ñaan ndax Assane Ndiaye suma waay Cheikh Gueye laa koy may ak màggan bay ak Awa Cheikh Kassé sama xarit voilà ba tey nee naa leen ñu def li nga xamante ne mooy fulla ak fayda ci émission Rich Mon Djizz bi maman jërëjëf ci cuuraay bi man nga ko may mais man xam nga ku ma koy mayaat madame Sall jabaru Macky Sall il faut que mu nekk nii Euh, affaire yooyu fa nekk il faut que ñu jéem ko cuuraay pour mu dem topp ña dem ndax pale bi nee naa la sëñ bi dem na ministre ya dem na mais Macky ñëw na ak soxnaam ak yeneen i ministre yu bees ba tax na dañ leen di jox ci gowe saaf bi madame Sall yow yaa moom lii cuuraayal ñu pale bi ba mu Rismon Diis waaw ba tax na kon émission bi nii lay demee saa su nekk ñu xool ñi nga xamante ne ñooy talboo yu Rismon Diis yi ñu pëtaxal leen ci Assane Ndiaye bi jàll ca leneen. di kundul bàyyi maam sama jigéen bi yal na suuf woyof ci kawam sama yaay ne na maam asal mu wax njaay ata nu njaay mu ne dina baax njaay bay Samba Beye sama chéri ko. Samba Beye kese ci Cap Vert waaw. waaye lan moo nekk sa yaram bi ba mënoo taxaw. yaa ngi vivre de. xanaa oto moo nekk sa yaram bi. ah <laughs> waaw ba tey nee naa la ah waaye lii ah, lii dootul jàmm de ah yow yow yow kan nga ah dama bëgg a rek. kii nag leer na ma ni Ablaye wax da ko yónni sacrifice la wut si si man mais du dem du dem man dama guma waaw fi mu nekk looloo nekkoon émission Rich Mon Djizz bi nee naa leen émission bi may ma <laughs> waaw vas-y émission bi nii lay demee saa su nekk ba tax na nii lañ leen koy joxee saa su nekk yaa ngi ci biir émission Rismon Djizz jox nañ la Assane Ndiaye ci dëkk bi nga xamante ne macha allah dafa Rismon Djizz looy wax. ah Rismon Djizz moom lu neex la moom waaw. koy man. jël ma borom caay ji. <laughs> yaa mais mais mais ah. yaa rafet. ma yaa ah, rafet waaw. xoolal kee mais gërëm lii la la <laughs> lii moo xew Macky Sall moo xew. <laughs> Macky mo xew. mais grand caay moo koy dakate. moo koy dakate. <laughs> waaw looy jaay nii foroote ak foroote ak puudar mbóot ak lay jaay. ak njata njata. waaw njata bi kii mooy nax sa goro. Ah. boo buggee juboo ak sa jabara. Ah. na nax sa goro. Ah. waaw waaw. li ngay tëmbal. bii laay tëmbal. bii laay yeewoo kan. waaw. yaay kan. maay koy nuyu ci Assane Ndiaye bi Assane Ndiaye bi maa ngi nuyoo senegal yëpp. ñoo foloon Ablaye Wade ñoo ko fëlli Sénégal yëpp laay nuyoo nag Sénégal yëpp hmm. yëpp laay nuyoo ak yow hmm. yow mii laay fontul lii lu muy xeeñ lu muy xeeñ oh cuuraay bi neex na <laughs> xoolal émission bi daal nii lay demee te du gis nañ tey borom njata xoolal yeel yi comme socc <laughs> ne sama yeel yi comme socc sama yeel yi comme socc yow tooñ nga de yow bul ma waay may ma loxo may bi maa ngi koy te jàll ci leneen loo xamante ne ni moom la jaam yi bëgg ñu di leen ko jox nee naa ñun dara ñoruñu lu dul lu leen neex ak lu leen di ah. séeréer yi nag ñoom lay félicité caay bi dégg nga caay bi séeréer yi laa koy may de pour pël yi. bàyyil fi nga jàpp bàyyil fi nga jàpp. xam nga caay yi pël yi ñoo moom mais séeréer yi laay may quoi. waaw séeréer séeréer <laughs> auzu billaahi mina <laughs> émission bi waxoon naa leen nii lay demee saa su nekk ba tax na Assane Ndiaye bi dañ koy tëjee ràpp ci kii may nañ ko Assane Ndiaye bi yëpp jox nañ ko Assane Ndiaye bi yëpp waaw yaa ko yor ok xew la ah. jërëjëfati waaw ba tax na fi mu nekk dañuy jàll ci leneen ak keneen ak feneen ci seen biir émission Rich mon émission Rich-mon Djizz bi nii lay demee saa su nekk ba tax na émission bi pa mère xale liir ñëp si biir nee naa la émission bi borom caaya ji na fi mu nekk nii.